ginaaw ma sante yalla julli ci yonent bi di sante suma ñaari wajur ma ngi sante suma serigne maulana Cheikh Ibrahima Niass ma ngi nuyu wa senegal di nuyu wa Gambi di nuyu wa axlu lamb bu Gambi ak axlu lamb bu senegal di nuyu wa Kanda Fodé Bayo waa gën ci Mbao wa di nuyu kep ku fi tew ci epon press bi waaw di len wax ne len euh, macha allah gis nañ taxaw bi di len wax tamit ne len di leen masawu choono parce que depuis combat bi mu taxaw ba léegi fi tay ken nelawatut waaw te lamb bu nekk noonu lay mel kon di leen masawu coono bu baax a baax di leen jégalu tamit bu baax a baax parce que dafa métti benn nit rek lakal lakkal lakkal waa dëkk bi wa di jégalu ñëpp tamit ah waaw di nuy journaliste presse bi fi ñëw yëpp tamit maa leen di nuyu waaw. combat bi comme ni ma daan waajee rek surtout bii bi moo ci raw parce que tamit foog naa ne képp kuy bëre ku nekk roi des arènes nga bëgg a nekk képp kuy bëre ku nekk tamit bëgg nga euh, dégg de des waaw kon tey suñ demee ba yàlla di ñuy euh, booleeg ñiy bëreeg roi des arènes pour nekk roi de arènes moo ñu taxoon a jóg kon bu ñuy bëreeg roi des arènes bu ñu doon def dañ ciy def fukk parce que tamit xam nañ lii lañ soxla woon te liggéey nañ liggéey liggéey liggéey ba yegg ci kenn kon kooku du ñu téye pour ñu nekk roi roi incha allah bu neexee yàlla dañ koy nekk. waa ku gis double Tyson ku nekk ku ko xam ku nekk xam ko ci bëre. Mhm. parce que foog naa ne bi ma gën a nekk xale sa laa gën a bëre ni léegi ma gis ne daal lamb bu nekk ak noo koy préparé lamb ji laaj pour ma wàññi poids pour ñëw bëreeg waa ji teg ko lu métti parce que nit nag lu su yoree dara nga soxla ko donc koy wan ne ko maa la ko gën a soxla teg naa sama yaram coono goo xamante ne nii gëm naa ne incha allah bu neexee yàlla dama koy foqarti bu ko neexe bu ko naqaree. te tamit di wax ne di ah, wax ne. bor laay jël si. lépp fay. amul lépp fay. lépp fay la parce que nit boo yorelee nit ki bor da nga koy fay. daf ma yoreel bor bor bi laay jël si mu ko neexee bu ko naqaree damay jël si bor bi. waaw ta bis ni ki tey maa ngi bëgg waa Sénégal waa Gambie. Ah. képp kuy bëggee Double Tyson. Ah. ak ku koy bëggee bëgg naa ñu may King Double. waaw dama koy nekk bu neexee yàlla ci kattanu yàlla bu sooba yàlla king duubul laay nekk waaw mooy bu neexee yàlla bu sooba yàlla damay nekk roi des arènes bu Gambie déggu ma déggu ma su ma jëlee bu Gambie bi kay xam nga fu ma jëm dama damaa bëgg def lu kenn defut dama bëgg a bokk ci histoire dama bëgg bok ci histoire daf lu kenn dafu téye roi des bu bu Gambie ñew jël si bu Sénégal bi mu nek mu nek double roi. woy wow, bu buma duggé waaw. man ba légui fuma tek sama tank fofu la tek sama tank doomu Kaolack la couleur Kaolack lay défendre. Kaolack waa pire la deretu Kaolack mooy daw suma yaram fu ma dem loolu laay tiitaroo fu ma dem lool laay tiitaroo mënu ma am lu gën Kaolack suñ ma mayoon kër États-Unis sax ah. wala biir kër euh, Angleterre sax Kaolack laay tiitaroo waaw kon nag Kaolack ba tey Kaolack ba tey promoteurs yi ba tey ubbil naa leen buntu buñ ma soxlaa hmm. ku doomu Kaolack hmm. suñ ñëwee ma bëril leen combat bi pare na barki ya combat bu non combat bi combat laa ko préparé Dakar ànd ak seq ñi nga xamante ne ay champion la ku ci mel ni Tyson 2 moom sonn ci combat bi waaw parce que tamit xam nga daj nañ ay coono yoo xam ne depuis ci koor gi ba léegi depuis ci koor gi ba léegi bàyyiwuñu man ak ñoom man ak ñoom ba tey waaw kon nag waaj nañ daal bu baax a baax. rapport euh, chef wax waaw comme li may wax rek nañ jël fii ma jëli fële rek mu gën a neex na gaa jël euh, drapeau chef de l'État bi Kaolack ma dem jëli bu Gambie bi mu gën a neex Kaolack gën a neex. autorité yi ba léegi gisaguñ jàppale wax dëgg yàlla ba léegi ni may wax ak nii gisaguñ jàppale mais nag ñu ngi leen di xaar ba tey tamit passé gut waaw buñ buñ ñëwee rek après ba tey bu ñuy defaat bu ñuy defaat euh, kii euh, nu mu tudd beneen beneen beneen euh, génn dinañ ci wax mais daal fu mu toll nii gisaguñ kenn waaw ñenn ñi da nga leen di woo duñ la jël wala ñenn ñi nga wax ak ñoom ñu ne la après mais déggaguñ ci kenn daal. waaw ba léegi gisaguma kenn ji man suñuy moyen bopp lu dul sama julul waa Kaolack ak waa xarañ famille di xaar di xaar waa Kaolack yi nee nañ bëgg nañ bëgg nañ balaa 3 heures fekk ne stade bi yëpp supporter Double Tyson lay nek nekk moo tax 217 lañ defar seen moyen bopp génne ko